ndax ñoom loo def seen njaboot yi ñu ngi koy yëg fi ñu nekk te danañ fexe ba doo ko rëccu mukk ndax lu mu de nit lu mu rëccu rek dootu ko defati waaw waaye lépp loo xam ne def nga ko mu jig la nga defaat ko mu jig la nga defaat ko mu jig la dootoo ko bàyyi mukk te taxawaay boobu la taxaw ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla sotti ay mu ci moom yal na yàlla sotti barke Cheikh Tidiane ci moom njaboot Cheikh gi seen barke bi ñuy àndat lépp yàlla na ci am cere bu law a law boo xam ne dara du ko wàññi dara du ko jeexal barke Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu barke Mawlana Cheikh Ahmad Tijani barke Mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te di leen yëgal na itam jaayisatu Cheikh l'Islam bi nga xam ne Cheikh Abdul Malik moo koy organisé at mu jot ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ni ki ëllëg ci guddi suba ci ëllëg ci guddi lañ koy def ci këri gan waaye ku seet bàyyi fonk gi fonkoon alquran ak wax yi mu wax ci alquran doo tardé mukk jotaay boobu te képp ku bëgg a def lu baax itam buntu la bu ubbeeku sa kanam na ñëpp taxaw dimbale ñoom ñii di ko organiser nga xam ne coono bi lépp ñoo ko enu ñooy déglu nit ñi ñi tari ñooy seet ñi nga xam ne itam ñoo am awlawiya yaa ngi jiitu coono boobu yëpp teggil nañ ñu ko kon dañ leen a war a dimbale ci li ci des yàlla yàlla ànd ak na yàlla defal leen li ngeen bëgg yàlla taxawu leen ngeen def ko at yu bare bare bari mu yokk daa iman ci seen loxo te gis nañ ne itam incha allah dafa yokk te dara du ko taxawal xawlillahi wa quwwatihi kon ñu jàng mu bi ñaan Waapoli TV